bum kàngay na bum dal. Malcom jërëjëf gis ngeen gars yi ki ma toogal mooy borom top 5 Mame Balla Nori Mame Balla Guédiawaye Mame Balla mi nga xamante ne dernière sortie mu ngi ko bëreeg Tapha Mbeur am ndam lu rëy mais Mame Balla avant ñu ngi lay. maa leen fay bu baax a baax. du nuyu mbokk internet yëpp waaw di leen bëgg bu baax di rafetlu seen teewaay yéen journaliste parce que wane ci làmb ngeen di dox ci bës ngeen di dox waaye tamit da ngeen ci làmb trop parce tey bi ma ñëwee fii damaa kontaan si yéen ñëpp laa fekk bëgg naa bu baax a baax. sa combat yaag Tapha Mbeur ñu bari jàppoon ni Tapha Mbeur bu la jàppee da lay duma da lay daal ñëw indi loo xamante ni dox ci koom. jàpp ko daan ko comme ni nga daan waaye boo xam ne ñëpp xam nañ ne sa for la donc bot moom ñëpp xamee nañ sa for la loolu yëpp waaw xam nga bu baax rek maa ngi ko nuyu bu baax a baax de passage euh, waxoon naa ko dinaa ko waxaat bi may entraîné entraîné woon pour Tafa Mbeur dama entraîné place si yàlla dogal ñu wax may adversaire quatre ba ci moom mu nekk quatrième fois mu taxaw moom moo ñàkk sax dal si man parce que man pare ma woon pour ñàkk combat affaire yu ñàkk combat dafa jeex sama ka bàyyi sama ginnaaw li nekk sa kanam li nekk sama kanam bu dee li nga xam ne mooy maye victoire dama ci nekk mu maye ndam muy liggéey lu ma sama làmmiñ bi di wax rek mais damay nekk si diini di nekk si di contact di gan di def lépp lépp ba pare serré di récupéré bu dee loolu mooy may ndam rek incha allahu lay doon maa toll ci liggéey. combat bi ñu gis ñu bari jàppoon nañ ne mag laa xale. ndeke même génération keroog bi nga simmee ñu nekkoon ci làmb ji yëpp gis nañ benn benn état ci kaw ki xamante ne mooy Mame Balla. waaw xam nga dañ ne noppi. arme bi gën na garaaw mooy silence. dama ko dama ko silence bi mais xaw naa rëccal sax ne ko suñu boolee entraînement nga bàyyi parce que boobu xam naa li may liggéey du ko liggéey man dama bokk ci làmb. te incha allahu rabbi gars yi dañu xam ne damaa bokk ci làmb maa ngi xeex bu baax xeex bi doo war sa làmb wax rek mais da ngay liggéey nekk ci diin yi nekk ci contact yi nekk ci tagg gan ba pare nga sérieux gëm li ngay def fit ak jom ak bëre mu ngi si ñun fit ak jom mu ngi si ñun ak bëre bi kon liggéey bi tamit moo si desoon te liggéey bi ñu ci instant bi ku taxaw suñu kanam dañ koy fekk ci kàttanu yàlla koo du ma laaj benn wooy mais koo xam ne leer na la sa palmarès rafet na palmarès su Mame Balla promoteur yi bokk na pour bëre moom bugguma si booteel bu naa ma bu parce que lamb ji bëri nañu bëri boo xam ne nii ku ci seet si ne la combat yi sante ko yàlla quoi daaw mbër yu bëri champion yu bëri yi ñu yaakaar ñu war loolu rek santal yàlla ku ñëw baax na. promoteur yi bu baax waaye kontaante bu baax a baax sax maa ngi dégg de ñoom bu baax sant yàlla bu baax xam naa bientôt rek léegi léegi nii rek incha allah. jaajëf Mamba. dégg naa la bu wér. ñu ci lamb. waaw am leen jàmm bu a baax dégg nañ jaajëf. Jabar Jabar ñoo ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay siyaar naa la ci xew Balla loo yëg. waaw ah, waaw Balla Gaye daa baax rek li mu am nii daa baax rek xolam moo ko may dafa tolérance quoi xam nga yamale ñëpp ku ci nekk boo bu la gisee tey da yaakaar na yow yow la gën a nekk sax sa gaayam ka ñeneen ñi ñëpp la melal noonu ñàkk fayda am dañoo bàyyi suñu liggéey bàyyi suñu lépp ñëw fii am na noo xam ne boo ko melul woon dañu bàyyi suñu liggéey bàyyi suñu temps ñëw fii waaw dafa am nu melal ñu koy ñaanal nag bësam bi muy juddu doomam doomam ji yàlla na ko yàlla barkeel yàlla na ko yàlla def nitu diine yàlla na tur buñ ko tuddee muy tur bi nga xam ne dañ ko doon dàqantelee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naan ko el saalix maanaam borom yërmande waaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy saaliw parce que dañ ko ko dañ ko dàqantelee ndax dafa yërmande gi nekkoon ci moom moo tax ñu ko doon wax ne Mouhamadou Saalix waaw kon yàlla na yàlla def mu wuyoo turandoo ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn du wax ak Jabar Sine te laajuñu ko ci làmb lu tax ñu gëj laa gis. waaw man maa ngi nii maa ngi fi xëy na cin bu tàng bi cin bu tàng bee tax ndax xam nga gaañi dañuy bëgg ruq bu sedd te ruq bu sedd amu fi looloo tax nga gën ngeen gëj maa gis. war nga am ay naataangoo ci làmb ku mel ni kan ak kan. waaw euh, gaañ yi ñu ngi wax ku mel ni giri Gris 2 na mer la fanaanoo de. ma ne ma loolu loolu combat bu yàgg la woon avant avant moo ko Reug Reug woon sax avant moo ko Reug Reug la woon sax combat boobu combat boobu dafa waroon leer ndax damaa dugg Medina daan fa daan fa daan fa ñaari ñaari ñaari ndaanaan daan fa Kayre 2 daan seen dégg war a bëri moom mu dem bëri Reug Reug nag man ba tey maa ngi toog di xaar suñu wax suñu waxtaanee ak man